ànduñu ci te soxlawul ñëpp nekk ci ay parti politique ñooñu ñëpp ci opposition Sénégal lañu bokk tey kenn ku nekk ak ni ngay doxalee sa opposition ñu bëgg nag yéen ñi nga xam ne yéenay le peuple sénégalais dañu bëgg ngeen jàppale opposition bi ci li ñuy liggéey pour bennal opposition boobu ndax tey soo jëlee lu mel ni m organisation yi ci nekk ay parti politique su ma limee juum waaye ay FRAPP ay md ay euh, Y'en ay euh, doy na ak keneen ak keneen duñu ay parti politique mu am ay parti politique à côté li ñu war a def nag ba loolu lépp ñu taxañ ko mu doon benn doole boo xam ne ñi ci nekk ñëpp dinañ gis seen bopp ci ñuy liggéey mooy nañu fexe ba jiital esprit ni benn lañu ci opposition bi te benn objectif la am mooy réew mi nañu fexe ba li fi nekk te baaxul ñu jëlee ko fi waaye nañ ko teg définitivement sur les rails moo tax yéen je vous rends hommage vous la jeunesse sénégalaise yéen jeunesse sénégalaise je vous rends war a xam yéenay ñan yéen yéenay askanu Sénégal yéenay plus de 60 pour de la population yéen yéen a toll ci ndaw foo xam ne ku bugg defar réew yéen la war a wéeru kon su ngeen demee ba jël conscience te li leer ba leer mooy tey la jeunesse a une conscience politique parce que ci passé bi dañ doon wax ni les jeune non pas de conscience politique le jeunes ñoo dul bindu ci liste électorale yi les jeunes ñoo dul voté ji tey est-ce que jeunesse boobu moo fi nekk vous avez pris conscience de votre responsabilité historique que mënatu leen toog naan ñëpp a yem jàpp seen ñàmbur les mêmes nekk fi depuis Senghor ba léegi même problème yi ñu koy jànkonteel waaye dama leen bëgg a wax leen lu am solo préparez-vous au combat waa ji ñu jàmmar lool waa ji ñu nga xam ne moom la ñu jàkkaarloo ku yaakaar ni wax ju neex. ak taal climatiseur toog sa salon moo ko fi jëlee ndax nga sa bopp bëggoon naa leen wax beneen discours bu bi waaye on est obligé d'être réaliste ab président de la république bu demee bay recruter ay nervi kooku narul jàmm ci réew mi kon waajal leen seen bopp chaque jour chaque heure chaque minute te préparez-vous au te bu leen déglu nag ñiy toog naa leen woy yéen a yee fitna jàmm nangam nangam parce que Sénégal mooy réew moo xam ne ki yor nguur gi lu mu def rek baax na ñëpp gis nañu mu jël ay samba booy di daal ci kaw askan wi est-ce que loolu yéen di ngeen ko nangu préparez-vous au combat parce que ni ngi leen di gis yëpp nag benn poignée la li mu yor ci ay nerf bi yëpp weesuwul 150 wala 200 vous êtes des millions loolu war leen jaaxal donc préparez-vous au combat parce que Macky Sall ci nii wala nele dina abal réew jox nañ ko mu waree ni mënut tey lan la lan la nit doon jàmbat 2011 te doublé wul wala triplé wul wala sax multiplié wuñ ko par 10 tey en 2021 nañ ma citeel benn exemple rek ba pare nga ne doo fi jóge te ku wax nga dal ci kawam est-ce que di ngeen ko nangu kon ñun li ñuy xaar ci yéen li ñuy xaar ci yéen mooy ngeen préparé parce que am réew li ko war a defar dafa laaj sacrifice na ngeen préparé ci sacrifice yooyu. waaye sacrifice yooyu du am njëriñ lu dul nag ma delloo ko ci sama mbokku homme politique yi askan wi dafa doyal ci xeex ba jëlee fi dara teg fi leneen les mêmes méthodes reprendre les mêmes hommes reviennent ñu defaat les mêmes choses ñu war a reprendre le combat dinañu xeex ba jëlee fi Macky Sall de mais kenn dootul nangu cette jeunesse ne l'acceptera pas nit ñëw toog andi sa njaboot andi sa famille jaay suñu ressource naturelle jaay suñu géej surfacturer les marchés publics euh, instrumentaliser la justice ku wàgga dal ci kawam di di pourchasser les les opposants di tëj nit ñi est-ce que loolu di ngeen ko nangu dama ne Ousmane Sonko bu dee yàlla dafa war a def mu nekk président amatul état de grâce amatul ñu naan nañ ko may day liggéey ku ngeen gunge ba mu nekk président yi son pied votre pied bu leen ko may une minute muy def lu ko neex parce que réew li koy defar du benn nit je vous remercie merci beaucoup